champs yi moom yéex na moom. voilà donc ça devient des choses yoo xamante ne man pour man c' est euh, nekkatul à la faveur de la victime. Mhm. alors que ñun c' est contraignant à la limite. voilà c' contraignant alors que ñun li ñu bëggoon moom mooy il mu nekk une faveur à la victime. pour képp koo xamante ne da ngay violé nit ñu prouvé ko tëj la une peine de mort parce que euh, bu ñu nee crime rek foofu foofu la yegg mhm. ki nga xam ne bu dañ lay jugé comme ku te ku rey nit mais depuis 2020 jusqu'à l'autre jour nous benn résultat euh, c'est favorable euh, à une victimes de violence mhm. surtout viol ne cas bari tribunal mais prouver mhm. de telle sorte que le procédures judiciaire mhm. ça un an deux ans même plus donc yow victime tu peux te lasser tu y a un cas

Euh, profite aux, aux victimes. Mhm. Donc, l'État, euh, li mu c'est une question qu'on se pose. voilà c'est une question qu'on se pose donc l'État il faut que nous xoolaat loolu ñu euh, aussi des rémi comme xaw les la pour au moins euh, permettre les victimes d'être être à l'aise parce que c'est beau entamer des procédures judiciaires mhm. ce n'est pas favorable en en en toi nga lâché Euh, euh, communauté bi commencé di lay pointer du droit. moonte mhm. de diw de la fi jiiñoon viol. ñii mhm. ni ñu mel gis nga mujjewul fenn. stigmatisé voilà donc nga amaat beneen métit boo xamante ne en plus intérieurement yow déjà am nga lu la métti boo xamante ne à vie du denc sa xel. Mhm. bu nekk ci yow. voilà nga ñëwaat ci violence morale. psychologique bi ñoo fekk si ko. ñoo ngi noonu. day da ngay gis jigéen yi da ngay gis bu xëy rek dee. doo xam sax lan moo ko rey tellement que il a interrogé beaucoup de beaucoup de choses yoo xamante ne amul foon la koy waxee donc je pense que l'État aussi il faut mu veiller ci loolu ñu jàppale jigéen ñi xoolaat nañ la ñuy defaatee cette réforme là pour mu mën a être profitable à. ñu ma dëgg la ay wax mais boo xoolee. sànq yaa ngi wax qu'est-ce qu'on attend de l'état mais je pense que ñun li ñu ko li ñu c'est parce que c'est une question urgente donc si ñu naan un état je pense que nous avons une solution moi l'institut des inégalités le projet et c'est une femme qui porte le projet gis parce que dafa gis ne violence tellement que c'est des violences qui sont récurrentes qu'il faut vraiment nous poser des actes d'urgence pour mener à jël ko en compte pas moo waral maison d'accueil parce que boo parce que l'état peut-être à les prérogatives, mais peut-être dans son agenda, inclure peut-être euh, entité boobu moo euh, consortium construction euh, en collaboration avec l'Institut des Immédiats nous parce que c'est une question d'urgence nous mettre en place des maisons des maisons d'accueil ce sont c'est des maisons qui sont c'est au profit des victimes euh, survivantes nous nga xam ne subir ay kii au moins boo une idée, première instance la victime a besoin d'être écoutée. Donc, nous, on essaie de, de vous porter une oreille attentive déglu là, parce que buñ la dégloo dalal la dina am peut-être sa mal bi dina xaw a mën a wàññeeku ndànk-ndànk. dina mhm. buñ accueillir ba ba la on travaille bu fekkee ça nécessite à ce que nous logeons là, pour un temps déterminé dañ lay loger le temps que vraiment nous régler ce problème bu fekkee ne ça nécessite à enclencher vraiment des procédures judiciaires. Nous là l'AGS mon association des du Sénégal nous mhm. sommes chargé charge tout ce qui est avocat tout ce qui est euh, certificat médical tout ce dama nous la question du certificat médical dans les séjours d'activisme nous, on en a profité pour vraiment lancer une sorte de pétition donc ñu defal ko sous forme de randonnée pare aussi def ko euh, ak mémorandum tëjee ko ak benn mémorandum mhm. donc l'objectif de de cette de cette randonnée et de ce de kii ci mémorandum boobu c'est quoi c'est interpeller l'État à ce que vraiment le certificat médical soit gratuit parce que boo xoolee euh, l'intervalle de ce de ce coût c'est entre 10 et 20 francs mhm. mais ki nga xam ne dafa nekk victime de violence que ça soit le viol que ça soit physique wala leneen kooku déjà dafa mu ngi nekk ci problème mhm. nga yóbbu ko ci hôpital mu war a génnewaat aussi ci poche te parfois du am les moyens loolu parfois day découragé ba tax procédure bi dañ ko stoppé mhm. moo tax ñun ci suñu kii au delà même de de de cette de ces maisons yi nga xam ne dañ leen di installé pour accueillir leen dalal leen au moins assurer leen ñun de un combat pour que le certificat médical soit gratuit Nous inclure les ministère de la famille ministère de l'enfant ministère parce que question de violence nous pouvons une affaire d'une entité mhm. mais c'est l'affaire de tout le monde il faut que puissions indi euh, leur à l'édifice pour que vraiment solutionner. voilà pour que monde solutionner maison d'accueil mhm. maison d'accueil boo leen pare pour financer la teg ko wala euh, c'est en forme de projet wala c'est des maisons d'accueil qui existent avant loolu njëriñu maison d'accueil ci xeex bi nga xamante ne moom mooy violence basée sur le genre lan waaw ñu ma njëriñam bari na. parce que dañoo xëy gis ne bu ñu xeex violence souvent da ngay gis nga xamante ne dañ ko réfugié di ñu dàq ji. maanaam dañ ko fase voilà wala ñu dóor la génne la kër gi xaaju guddi. Hmm. amoo foo dem. donc du coup am nga violence ci biir kër gi nga génn te exposé à toute sorte de violence parce que mën nañ la agressé mën nañ la violé mën nañ la rey lu nekk xaj na ci ñu ne nag comme c'est des femmes et souvent dañ leen di classer ci les couches vulnérables ñu ne bu ñu amee ces maisons là dinañ leen permettre ku génn di nga am foo daw laa parce que ki nga xamante ne day toog di subir violence xëy na peut-être amul fu mu jëm amul fu mu jëm euh, du côté bu euh, mhm. aussi dem du côté euh, euh, économique c'est-à-dire il est dépendant Et nga xamantene mom moom moo la violence bi mom moo yor ci dara donc ñu né ces maisons là dina permettre c'est dans le cadre du projet parce que comme ni ko daba euh jigéen la institut des inégalités mom mo accompagner mu ne pourquoi pas parce que c'est le rôle de l'État de le faire tout à fait et au niveau des ministères, nous ils vont mettre en place cette maison au niveau de Dakar. Mais jusqu'à présent, peut-être c'est des ça programmes, à à venir. Mhm. Nous, comme ça, ça tarde à venir. Et on a vu que les, les violences sont très récurrentes. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'organisation de la société civile Nous mettre en place ces, ces maisons mais c'est des appartements à trois chambres salon donc c'est un accueil temporaire. juste le cas de temps de régler la situation. parce que maintenant les clients ont par médiation maintenant les régler. Euh, référence référencement du dans les maisons de. en collaboration avec les juristes et voilà voilà c'est ça donc. Euh, c'est provisoire hein? euh, l'accueil est provisoire le temps que on règle la situation pour monde là mais quand même comme nous ma dit, c'est à l'état de le faire parce que nous aussi euh, les femmes qui état à lañ donc les lu ñu a soxla moom da ci war donc ces maisons là dañ koy wax yàgg nañ di koy wax même avant ñuy xalaat di koy mais boo leen woo ci ndaje dañ lay naan non on va le ñoo ngi ci ñoo ñoo ngi ci suñuy programme mhm. mais seen programme dina jeex te doo ko gis ñoom mhm. ci urgence lañ nekk ñoom ci planification mhm. yow yaa parce que urgence moom mooy tey waratuñoo gis benn du xaar voilà urgence du xaar parce que kenn xamul violence à tout moment mën léegi nag yow booy dox ci programme alors que ki ñuy violenté xamoo kañ lay nekk xamoo kañ lañ koy violenté kooku toog di xaar amana mën na di xaar ci kër gi ba ba ñu rey ko moo tax dañuy gis des cas yoo xamante ne dañ leen di rey day ci biir kër yi ñu nëpp nëppal naan ak wut da wutali ku góor gi kayitu dof alors que doful. Mhm. ñoom waay la. voilà mais Sénégal moo tëddee nii. waaw yenn nit defee rek pour vraiment protéger ko utal ko kayitu dof fekk nit waay la. te leen di may boo xamante ne nag dinañ daw làqu le temps que la situation soit se règle au niveau de la famille soit aussi beneen procédure boo xamante ne. au niveau juridique. voilà au niveau nekk dem sa yoon nga am sa jàmm. naataange ciy yokk li ñu ciy yokk mhm. euh, ñu gis ni maison d'accueil doonul loo xamante ni du mhm. parce qu'il y a y a un minimum à respecter mhm. euh, on dira pas confort confort mais il y aura un minimum de confort il y aura à manger euh, accueil tam dafa war a nekk est-ce que loolu yéen prévoir rien ko euh, comme ni ko Dior waxee ci démarche euh, pour vous rassurer maison ça existe déjà macha allah existe là, ñun ci cette région parce que nous sommes en consortium euh, avec cette autre région Nous, au niveau de Dakar AGS et Front social nous avons piloté Nous suñu maison ba ñu au niveau du centre BOP, à Malick Gaïa. Euh, la donc ñu sommes au deuxième Donc, on a trois chambres salle de réunion a cuisine on a chaque chambre a une toilette on a aussi un grand salon on a ne c'est équipé am des télé on a frigo léegi pour euh, côté personnel parce que dañ ko enclenché woon commencé ko léegi le bailleur mu gis ne vraiment lii lu am solo la mu ne day yónni benn expert pour mu xool li nga xam ne c'est des manquements pour mu daal di ko def pour mu gën a yànji au moins nit ki bu ñëwee vraiment mu mën a sentir un bon cadre de vie mm-hmm. parce que booy wax une maison dina am des personnes permanentes mm-hmm. quand de personnes permanentes il mu am ki nga xam ne mooy assuré l'écoute mm-hmm. il faut mu am kii assurer gardiennage bi

il faut tout à fait donc et puis le bailleur vraiment a pensé vraiment la nécessité. Mhm. d'accompagner ces femmes avec vraiment une somme. Euh, léegi somme boobu ça va permettre à la femme d'être autonome. parce que boo xoolee violence yëpp. de reprendre un souffle vie mm-hmm. parce boo xoolee euh, li gën a li gën a waral violence yi yëpp. et que les femmes n'arrivent pas à avoir une alternative. la dépendance économique rek voilà c'est bu xëyee jox ma 10 000 na pour 5 jours la man ma teg ca 5 000 muy 15 bu ko fay du ma du uh-huh. mais bu fekkente ne yow monsieur Faye jox ma bëgëm bi jeex na gaz bi jeex na xale yi nii xale yi nii en fin de compte day dem ba sonn mais jigéen bu amee benn autonomie financière ne serait mu gérer uh-huh. uh-huh. day bari donc vraiment loolu dafa métti yàlla ci yàlla nga bëgg a def te mënoo def dafa métti da nga doo xottal sa xol ba nga xam ne yow si jëm beaucoup première personne bi ngay gis mooy kan sa jabar ah. moom nga koy exercer yëpp ci kawam bien vrai que c'est pas normal mais gis ko tamit nañu jël vraiment tamit voilà ñu ñu jéem a euh, am lu ñuy defaral suñu bopp ba tax na projet bi nag bu jëlee jigéen ñooñu mu jëlee mais nag il faut reconnaître que du du du foo jógee sama jëkkër daf maa xeelu tey ma xeelu ko ma daw ba non non ñun on cas parce que on a des fichiers yoo xam dañ koy dañ koy kii hmm. yow c'est classe ñu bëgg bëgg koo xam ne day daw ay normal yow 4 jours ne ah ma ne sama 4 jours xam nga tapas sama jëkkër tapas ko daw si foofu yow amul fa donc on a vraiment des des critères yoo xam ne lii vraiment c'est dans le besoin c'est un cas ñu daal di ko traité daal bu fekkee dañ la war a orienté ci waa AGS ñu orienté la bu fekkee ne loo xam ne médiation la question euh, d'incompréhension la mën nañ ko waxtaan ak jigéen ji ba nga xam ne wax dëgg fa dañuy solutionné nga delluwaat sa kër ci jàmm dañ koy def bu fekkente ne aussi ça nécessite à ce que yow amoo dara loo def tu as besoin d'être accompagné financièrement ñu xool ko lañ lay jàppale mais balaa ñu lay jox xaas nag ñu formé mhm. parce que nit ki mën mhm. na jox xaalis compétence bi nga nekk ñu formé la ca ba xam ne tu as ñu daal di jël xaas bi accompagné la nga noo demal sa bopp incha allah ah loolu moom loolu bu bëree bu yaatoo moom du ma ne violence doo ci am mais dina dina <laughs> eh, ci loolu eh, boo amoon un petit plaidoyer booy def

cultiver cet eh, esprit de complémentarité dina permettre au moins violence bi dina wàññeeku parce que boo xool nit ki ne man maa ko tut man maay kilifa gi ci kër gi man maa moom kàddu gi ci kër gi lu ma neex noonu la ñuy loolu loolooy wéy ci kër gi déjà loolu violence la te yow li tax nga takk jabar c'est parce que y un manque en toi am na lu la manqué moom moo tax nga takk jabar pour ñu ñëw complété la kon en ce cas kooku noonu yow yaa ko sut wala dafa ñëw pour complété donc bu ñu amee set esprit là rek defe naa ne violence bi donte que naam mënuñu koo dindi carrément mais dina wàññeeku. aussi ci ci ma yokkaat ci li nga xamante ne aussi góor yi ñu delluwaat set société bi nga xamante ne dafa yàqu ñu xool nan lañ koy defaraatee ñuy waxtaan ak mag ñi ñuy tàggat parce que dama doon gis euh, un oncle me disait bu njëkk boo tollee ci takk euh, soxna dañ lay yebal ci sa nijaay. mu tàggat la woon la nan ngay yoree soxna. nga fekk suñu kay nekk référence. voilà <laughs> aywa bu dee ko jigéen ki ñu yóbbu ko ci bàjjanam mu tàggat ko nan lay nan lay sëyee. Mhm. mais moo taxoon bu njëkk ménage yi loon am problème parce que ku nekk dinañ la jàngal nan ngay yoree sa soxna. Mhm. mais léegi da ngay gis jigéen yi la ñuy naan boo demee nga mu. ku góor ki duñ ko dara. ku góor ki duñ ko wax dara. te alors que bu njëkk ñaar yépp lañ doon yëpp. donc il faut qu'on change de discours. voilà parce que ñaari lañ doon yépp ci ménage du kenn. Uh-huh. ñaari nit la tay ci suba rek sama benn cousin lool la lool la ma mu ne ma man su ma xëyee sama kër balaa jaba jaba ji di kii nee na damay tàngal ndox tegal nee na fonk table bi lal nee na jaba ji bu génne ko ni ay eh, papa yaa ngi ñuy rus loolu mu ne ko mais c'est nous deux donc ma ne ko yow esprit bi nga am vraiment nit ñi amuñ habitude euh, euh, di ko def ba bu voilà nee na nee na voilà na ma ne ko mais Luminize man ak yow la dañuy xëy liggéey yow yaa ngi kii pare goo man pare naa mais mën naa defar ndekki bi le temps que ngay pare bu pare le temps que muy solu mu rangé nettoyé ba mu seet ba mu mu ne ma c'est une habitude boo xamante ne man ak sama jabat mu ne bu dee loolu du ñu mës a am violence nee na parce que balaa muy wàcc sax ma xool nan lay commencé tàmbale reer bi balaa muy yéeg si ci kër gi ma ne ko am ah, mais nag il faut ñu xool nan la ñuy yoree ménage yi nan la ñuy yoree ménage yi parce que tamit ñàkk dépense warul mën a tax nga ñëw di koy sëppi sa jabar tegu la ko te alors que boo ko joxee 100 francs moom day jël 200 teg ci pour mën a mottali dépense yow ni mos voilà yow da lay taajal añ mu seefaral la ko defal ko ba mu baax mu leer na ne lii bàyyiwoo ko ci kër mhm. kon loolu rek war na mën a tax ñu bañ a def violence may wax aussi ci maison yi nga xamante ne comme ni ko Daba waxee euh, yéemuñu sax ci euh, les victimes de violence parce que dañ koo gën a yaatal xam ne ñoo ne les migrants de retour parce que ñooñu ñu leen dàq si biir violence amul dañu nga xoole moom de daa dem ba foofu noonu ñibbi ay loxo yi neen di dalal comme euh, suñu psychologue bi nga xamante ne moom moo fi nekk dina mën a waxtaan ak yow orienté la dalal la ba sa xel mën a dellu si pour nga mën a ñibbi parce que amoon nañ benn il est de Thiès dafa yem Dakar gars nga ne moo ngi extérieur ba léegi mais tout un problème pour mu ñibbi alors que gi nii la dëkk donc cette stigmatisation bi nga xamante ne moom lañu ñu si donc dégg nga femme bi li mu doon wax ñun ñi nga xamante ne ay sénégalais lañ Maroc bi lañ nekk di yelwaan parce que am nañ problème pour ñibb si nañ la ñuy jàkkaarlooy ak société bi alors ko tukki am tukki am aussi boo demee ba xamatoo fi nga jóge da ngay delluwaat fi nga jóge woon jël ci en compte euh, li mooy yooyu yan ngeen am waa catastrophe naturelle wala aussi ñu lay poursuivre ñooñu aussi jël nañ leen kan kon dañ daan dañ koo yaatal ñi nga xamante ne bu ñu nee violence rek ñooñu yëpp dañ koy subir ñu ne ñi nga xamante ne toute de violence qu'il soit migrant retour qu'il soit koo au niveau des ménages la wala qu'il réfugié boo ñëwee aussi

mais ñun dañuy par exemple euh, kilifa parce que waxam ñun di waxaat góor di ko tàggat góor à de Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam je pense que ay góor yu bëri dinañ mën a dinañ mën a dinañ mën a dinañ mën a dinañ mën a soppeeku parce que ñoom ñu ngi xamul ñoom dafa am ku ñu weneen lii la diina wax ñoom ñu dëggal loolu la diina wax mais buñu am na ñoo xam te ne xam nañ dañ koo tey uh-huh. donc je pense que imaam yi tamit ñu ñoo ngi leen ciy woo ci ci combat vraiment ñun soxnaam yi di xool vraiment ñu xam ne vraiment. moo doon def loolu. parce que ñu jaar ñu léegi nag beneen bi ci tegu mooy. il faut ñu jëlaat xool jigéen toujours ci ci lislaam fi ko yàlla teg ñaata yoon la ko woo yan yan yan yan yan yan. dem. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne. yaayam bi mu ko juree nampalu ko lan moo tax nampalu pourtant feebarul dara dalu ko woon lan moo tax alimatu saadix léegi nag loolu il parce que loolu mooy tax togg du obligation la dañ koo tënk wax ko mais góor ñi ko leen ko waxoon tey ah, yooyu xaw koo jël ci li ci baax man damay naan aada nañ jël li baax ci aada ñu téye te jël lii nga xam ne suñu suñu lislaam ñu ñu waxee ni ko lislaam waxee bañ cee parce que njëriñ la ci ñëpp parce que ni mu waxee ne góor ñii la ko soxna ñii soxna ñii nga war a wax ak sa borom kër ñii nga war a def ak sa borom kër moo tax que vraiment loolu yëpp buñ ko amee dina xawa dina xawa tane buñ amé tamen bajanu gox yi ñu bañ di baye ba problème ñu ñu do do door la fa gis nga eh, man dama ne prévention dafa bax ci lo gis éducateur nga nek chef de quartier benn dëkk délégué de quartier bajanu gox ñu gis bu tax dama am nga ne xamone nako ci ci yow da nga war a la ma paa bi nu mu demee. nga mhm. dem lu jënte ko. ci discrétion ci discrétion. c'est ça ak bàyyi tamit ñi nga xam ne dañoo nekk ñoom ñoo nekk dans les premières instances bu ñu ñëwee gis nga la question de la confidentialité tant que mu ngi ñàkk ci suñu réew mi violence du du jóge violence du fi jóge kon yu sax togguma la daba day hmm? indi day indi sax euh, violence parce que nit da nga koy confier mu yóbbu ko waxutee sante ba ñëw mhm. ma ma waxoon ni yooyu noonu tax je pense que mën nañ mettre en place te état bi tamit bu fekkee mu ngi dégg mën nañ mettre en place des structures yoo xam ne c'est une ay confidence nga xam ne c'est scellé lépp dañ ko dañ ko fay am répertorier ko ku nekk am sa kii ñu xool fonction de de ça am nañ disconfidence. confidence mais c'est une priorité donc je pense que bu violence dina aussi mhm. di di donc ko je pense di euh, di donc euh, violence c'est ça une affaire. Mhm. Donc c'est un combat de tout un chacun de nous. Mhm. De côté de la baie merci à Djibi, merci à Euh, ñuy remercier Abdoulaye Ba pour le questionnaire. Mhm. Euh, Amadou Sarr rédacteur en chef macha allah ko ñu ngi koy remercier di nuyu kilifa kër bi di Cheikh Hamidou Bane nuyu maire Ndiouf foofu moom tam macha allah suñu maam bi di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér. El Hadj Malick Guèye Dame Meewaan ñoom ñëpp macha allah ñu leen nuyu di leen sant di leen ñu bàyyi suñu invité ñu tàggoog bokk auditeurs yi ba beneen. <laughs> au service du développement donc tout ce qui est développement on verse dans ça incha allah dinañ dinañ def ay plateau yu faral yu mel nii bu ko defee ñu gën a mën a mhm. sensibiliser mhm. parce que zone bu mel ne Grand Yoff mhm. zone boo xamante ne tamit violence bi tamit dafay bari ñu koy waxtaanee population bi di ko dégg di ñàkk mu am njeexital ci ñoom waaw kon ni ñu koy waxee li duuf ci nag di xaju ci cin bi ndax violence moom bu ñu ko doon wax euh, taane fii ba suba defe naa ne du mës a jeex xanaa ñu yemalu ko fii nii rek di leen naan aussi euh, maison d'accueil yi nga xamante ne moom lañ ay euh, am au niveau de centre bopp numéro téléphone yi nga xamantene mom lañ yor dinañ ko jallalé fini nii que ku am ki nga mëna woté bo boo mhm. aussi dinañ la dalal dinañ la waxtaan ko ñu ma tang bi suñu sociologue bi nga xamantene ma sha allah bu waxtaané ki yow rek sa xel day dal bo ñëwee dina dinañ ko fa fekk donc euh, sama numéro bi mom moy 77 352 78 71 euh daba aussi bo samedi bi 77 487 18 69 donc ñaari numéro yooyu noonu boo ci wootee daal boo ñëwee dinañ la dalal incha allah di remercier aussi sama boppalo bi macha allah <laughs> pël bu ñaawul bi nii dalal ci dalal bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax di remercier euh, waa Safina FM ñëpp nag di personnel comme ni ñu koy waxee euh, di directeur ba ba ci planton ba ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bu baax aussi euh, di naan euh, suñu auditeurs ak éditeurs yi ñuy déglu ñoom la ngi remercier ba beneen yoon incha allah merci. macha allah El Hadj Malick Guèye yàlla tàngooram Égypte technique technique bi bi nga xam ne bu def yembe ñoom la di remercier aussi madame Numa sama goro sama goro Bala Fante di kontaan tamit wax dëgg fa yàlla ba ma gisee comme sama sama sëriñ Cheikh Oumar Fouti wax ko dëgg fa kontaan naa ba ma ñëwee gis ko kontaan naa wax ko dëgg fa yàlla ku baax kilifa bu baax macha allah di ñaan yàlla mu ci barkeem di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñuy à travers YouTube bi nga xam ne aussi ñu déglu à travers ci ongle yi vraiment ci kontaan di naan vraiment lii lii c'est un combat et le combat continue. inchallah voilà c'est un combat et le combat continue à la prochaine dans une autre émission avec d'autres invités inchallah taala jaaraama.